bëggeet nañ leen sénégalais yi kontaan ci yéen partage yi abonné yi ak commentaire yi merci beaucoup Sénégal ak dootul sénégalais di wax ni Tata Mimi doon na def conférence de presse mais Tata Mimi da ngay xaar Tata mi foo jëm da ngay xaar nee na day doon candidat ci 2024 Tata Mimi da ngay xaar ndax Sénégal kat dañoo mën a jàppale ko mer ak koo xam dafa gaaw rek tak-tak rek mu mer daal di génn parti ba mu nekkoon daal di former partem sénégalais yi daal lay fal jàppale la dafa xewi Tata mi yaa génnal sa bopp kenn dàqu la tata mimi yow yaa bàyyi APR kenn dàqu la tata mimi maanaam la nga yaakaaroon moo amul tata mimi la nga doon campagne di ko liggéey liggéey ba weer wi dee ñu war laa fay fayu la nga xaar ñu aan la dinañ la fay duñ la fay nga ni baal ma daw bala ñu maa fay moo la dal léegi nag da nga génn pour sénégalais taxaw wala jàppale la jigéen nga am nga xam-xam jàmbaar nga torop yàgg nga wër xam nga lan mooy politique te xam nga lan mooy politicien dugg nga ci gaal gu xam ne nii day daw te tey si pour nga taxawal ko day jafe ndax Tata Mimi pour nga doon président da xaar dafa am lu fi nekk jamono ji dafa am ku fi nekk am lu fi nekk te ki fi nekk il faut que mu toog bañ xool lan la mën ak lan la mënul ba pare keneen ñëw Sénégal nag pare guñ pour fal président bu jigéen pare guñ ndax kat nañ waxante dëgg jàmbaar ngeen trop bëgg nañ jigéen xam nañ lan mooy jigéen te gëm nañ jigéen mais Tata mi da nga ñoo yàgg wan lu ñuy gis ndax yow bu Macky Sall demee ba am tey pouvoir tey Assemblée nationale bokk nga ci ñi ko jox. bu deme ba tey Macky Sall tey toog Assemblée nationale di fal président bu ko neex ci bokk nga ñi ko jox ndax yéen ñaar da ngeen a waxtaanoon bi ngeen waxtaanoon mu doon deal boo xam ni dangeen ko teg trancé ko deal ba kii di Macky Sall wor la ci biir deal bi ndax la douze. ci ci suur bi ñu war a def élection suur bi ñu waree woote ki war a jiit Assemblée nationale Macky Sall dafa la woo nga ne à 10h 10h et quelque ñu dama sensé li nga xam moom laa bëggoon def falatuma la keneen laay fal loolu moo la merloo loolu moo la ñaqloo loolu moo la tàngaloo te ba nga génn naan troisième candidat yi Macky def waxoon nga ko nag waxaat ko waxati ko kon nag Macky Sall dafa xam li nga xam ne yow moom nga bëgg moo tax defaloo ko ndax politicien kat day xam morotu politicien am Macky Sall xam na la xam lay ban saaru jigéen nga xam nga ban saaru nit nga moo tax defuloo tey nga doon président de la président assemblée ndax bu loo ko defoon tey nga toog ne Macky Sall du doon président ci biir ensemble ci biir ensemble nga ne Macky Sall du toog troisième candidature di la mettre mais dafa am lu sama xel di daw sama xel dafa ñaaw trop Tata Mimi ak Macky Sall réeroowuñu ñoom ñaari ñi ngi waxtaan di communiquer ndax Macky Sall troisième candidature dina ko déposé wala di ko déposé dafa am xel ñaar ci biir mais danaan dina xool wala du xool mu ne su xoolee jàllul mu jël Tata Mimi dugal ko kii di kii di eh, kii premier ministre gars yi ñu ngi naan moom la Macky Sall dugal moom du ko dugal premier ministre du nekk candidature tata Mimi mii laa gën a am yaakaar te moom Macky Sall ñi ngi communiqué ndax daf ne ko génnal nga mer sénégalais jàppale la ndax sénégalais ku mer rek lañ mën a jàppale léegi bu meree sénégalais gaaw jàppale ko ñu ma gaaw taxaw balaa 2024 mu formé dafay affaire ñu jàpp Seydina Ousmane Sonko dugal ko du mën a génn mais loolu